wa sahbihil hudatil mayamin mbokki jullit ñi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ti jiital sunu xalifa muhammadul muxtaar ayyadahu llahu wa xafizahu wa raahu di nuyu mbooleem xulafaa yi nekk ci réew mi yépp di nuyu ahlu bayti seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam gi nekk ci sunu biir sëriñ Baye ma xujja nekk ci bopp ba di nuyu njabootuk maam Mamour Jaxate sëriñ Mamadou Jaxate mu ngi nii teewal leen fi di nuyu chef de village Moussa Ndiamé seen mu ngi nii toog ci sunu ginnaaw di nuyu tamit xalifa dingiraay Cheikh Makhtar Gajaga yaakaar naa teew na fii moom it tey Cheikh Abbas Gajaga di nuyu monsieur le maire Momar Talla Gajaga di nuyu madame le député Marietou Dieng di nuyu sec chef de protocole bu préfet di nuyu monsieur Ablaye Seye mu yóbbaale mbooleem responsable politique yi nekk fi yépp njabootu Mama Mbaye Gadiaga nag am kontante ak mbégte gu rëy ci dëkk bi ci sixième édition bi nga xamante ni nii moom la ñu xewle di ci ñaanal Mama Mbaye Gadiaga ak mbooleem kilifa gu génn àddina ci dëkk bi ndax seen mission moo doonoon tasaare oote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam comme nin ko waxee ci suba dañuy sant nag di gërëm taawu Chérif Abdullah muy Seydina Laay tey ci suba ñëw na ci kër gi def fi waxtaan bu am solo te loolu yaakaar naa ahlu bayti bi yépp la ko defal comme ni mu ko waxee rek moom umma islaamiya bi lay waxal waaye nag du waxal tarixa kon naa ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci jàppandal nag goo xamante ni nii Serigne Njàmbe moo nu ko yombalal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bés bi nag tey dañ koo darajaale sunu maam Mamour Jaxate ndax ci bëcëg ñun ñëpp déglu nañ ci ëtt bi histoire Mama Mbaye Gadiaga ak Mame Mamour Diakhaté muy histoire bu am solo comme niñ ko waxee ci suba rekk mu mel ni ñoom ñu ngi dund ba tey ndax wa zikruka ba'dal mawt umrun saanin tudd gi leen di tudd ginnaaw ba nu làqoo dafa mel ni geneen dund gu nuy dund ndax ñoom danoo amoon njariñ ci kaw suuf mu mel ni ñu ngi nuyu tamit daayira Thiès seen responsable moral mu ngi ne lay toog di Samba yaakaar naa kàddu yi nag dañ koo fa yéene gàttal rek parce que mu ngi guddi pour sëriñ bi dugg ci waxtaan bi dinañ jox parole imaam Seydi gajaga mu wax ci turu sunu maam Mor Gajaga ak njaboot gi yépp buñ ca paree jox parole Mamadou Jaxate mu wax ci turu waa Njaxate suñ ci paree jox parole monsieur le maire Momar Talla Gajaga walla chef de village kenn yóbbaale ci moroomam dinañ jox parole tamit madame la dépité muy soxna Mareetu mais toog sunu paree nag oustaz Libaas wax ci kaddu association famille Mama Mbaye Gadiaga nan la taxawee ak nan la ñuy dérouler seen programme annuel imaam Seydi bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafi alxalq muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala wa asxaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diin ñu ngi jiital si nuyoo bi sunub xalifa seydina muhammadu maxtaar xafizahu llah wa raa ayadahu llah wa nasarahu di sant képp koo xamante ni teew nga fi góor ak jigéen mag ak ndaw si turu Baay Moor Gajaga ak ay rakkam Baye Amar Baye Balla ak seen taaw ñu ànd ko ak ñoom muy mbay caw mu yóbbaale njaboot gi yépp sant yàlla mi nga xamante ne si ay xéewalam ay dogalam ay namm-nammam si lépp di mate ndax ay weer nga jàpp benn bis bu tudd la 7 octobre 2023 ay ay weer yàlla def fi lu ne rey na fi laggal na fi toroxal na fi teddadil na fi def na fi lu ne macha allah waaye teddal na fi waaye yàlla bàyyi ñu fi ba nu fekke la set boobu kon ñu ngi sant yàlla moo tax Baye Mor na ñun ñëpp ñu ànd wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax lépp yàlla la mooy def lu ko neex bu nu toogee fii tey mi ngi nekk si nammeelu yàlla kon ñu ngi koy sant bu baax a baax foofu la ñuy jaare nag sant mboolem dëkk bi yëpp comme ni ñu ko waxee léegi ndax yàlla buñ ko sante it yonent moo ni man laa yaskuri naasa laa yaskurullah ku gërëmul nit ñi doo gërëm yàlla kon yonent moo nu may odaasu ñu gërëm nit ñi ndax ku gis lii ni mu mel dëgg la njabootu Mama Mbay takkoo nanu def benn say àndandoo di xàccandoo di dóorandoo ngir bis bi jàkk waaye ku gis bis bi xam ni dëkk bi yëpp jàpp nan si njaboot gi yëpp jàpp nan si mbokk gi yëpp jàpp nan si dëkkandoo gi yëpp jàpp nan si mais xarit yi yëpp jàpp nan si kon ñépp jàpp si bis bi kon baymoor mu ngi sant di gërëm dëkk bi yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn di feeñal seen mbégte ak son kontante ci sunu bisu maam bii nga xamante ni daanaka damay wax ne amuñu lu dul moom xaaj bis bi ñetti xaaj si suba gi jàng nañu kaamil juróomi kaamil 41 yaasin def ay istighfar julli si yonent bi salaa def ay ikhlaas yooyu yëpp yàlla na yàlla def ko ci xabru Mama Mbaye Gadiaga ak mboolem ñi mu àndaloon wuy si bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam bokk kook mission bi ndax xam na ni gëm na nanu yàlla boole na ko sa ñam doon wax naan minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah fa minhum man xada naxba wa minhum man yantazir baatu rijaal boobu ibnu arabi jël baatu rijaal bi yàlla tudd mun walahu rijalun ilahiyun yuxiimuuna daawatahu ñun gëm nañ ni ñoom sa lanu bokk kon ñooñu jar na noo ñaanal ñoo xamante ni yàlla moo wax ne nan li leen ñaanal rabbana ixfir lana wa li ixwanina allazina sabaquuna bil waaye wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu kon yàlla moo ne ñu ñaanal ñooñu kon ñaanal leen farata la kii wax ñu ñaanal leen nag mooy yàlla moo ni ad'uni astajib lakum ñaan leen leen yonent salaa salaam ni addu'a ñaan ngànnaayu julit la kon julit amul lu dul ñaan kon ñaan lanu am moo tax ñu booloo ñaanal leen yal na yàlla nangu suñu ñaan si ñoom yal yàlla jéggal leen yal na yàlla yërëm leen bi nu jullee ba pare ñu def benn waxtaan bu synthèse bu am solo si diggante Serigne Beyti ak Mama mbay macha allah guddi gi nag ñu ñëw si moom la nekk nii ñetti pàcc yaa ngi noonu Serigne Mama mbay ñu tudde ko sunu maam Mama mbay mu war koo taxawee yal na yàlla jàppale la Serigne bi. yal na yàlla dafa la ndimbal dafa la sutura dafa la teraanga yaag say mag ak say rakk yi nga fi nekkal yépp kontaan nanu taaral ngeen bis bi Serigne Ndiamé bég nanu ndax ku ku xool jataay bi ni mu toll ni mu mel xam ni taaral ngeen ko kon yàlla mi am fay rek lañ leen di boole di leen wax jazakumullahu xayral jaza ndax bu la nit defalee dara mënoo koy fay xamoo looy def boo ko waxee loolu yàlla mooy taxaw sa place fayal ko boppam kon yàlla na yàlla fay leen yal na yàlla jàppale leen yal yàlla taxawu leen yal na yàlla sut ñu ñaan yàlla nag si turu Baye Mor ñu ngi ñaan yàlla fekk ko ay déwén yu bare bare bari ànd ak wér ak wér la kenn bañ a mànk bi ñëw gën a neex gën a rafet gën a baax gën a teey wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa jërëjëf imam kaddu yi am na solo. kon ñu jox sunu wayjur Mamadou Diakhaté mu sànni ci ay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu moo ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye di ñaan yàlla mi am jàmm yàlla na nu boole defal jàmm nuyoo ba siyaara bi nu ngi ciy jiital sëriñ si sa bàyyi ma xujja nekk ci seen kanam yal na yàlla wattu leen taxawu leen dimbali leen mu gën a jege ok jërëjëf tonton ñuy am kontaante ak mbégte lool moo xam ni bii xëy na bu amee commencement amul yamuwaay muy gërëm loo xam ni mu ngi jóge ci Alaaji Seynaa Jaxate ki nga xam ni mooy xalifab Sëriñ Maamur yal yàlla dolli ko wér moom it waaye da ngeen a def lu rëy nag defal ko Sëriñ Maamur akuk njabootam kon ak njabootam war na noo taxaw feeñal seen mbégte ak seen kontaante waaye bég nañoo bég nañu bég nañoo bég nañoo nun njabootu maamur bég nañoo laa ilaa ilaa bég nanoo bég nanu bég na bég nanoo ñun njabootu Maamor bég nanoo laay laay laay waaye wàcc ngeen wàcc ngeen wàcc ngeen wàcc ma mbay wàcc ngeen laa ilaaha wàcc ngeen wàcc ngeen wàcc ngeen wàcc ngeen njabootu Maam Mbay wàcc ngeen laay laay la ñu am kontante lool nag ak mbégte ndax Maam Mbay dafa yàggan ak Serigne Mamour am na ay jaar-jaar yoo xam am na ay jaar-jaar yoo xam ne yi jaar-jaar yu am solo la ci diggante Mama Mbaye ak Serigne Mamour waaye defe naa sëriñ Mamour yàggan na ci dëkk bi ànd ak waa dëkk bi ak mag ñi fi nekkandoo woon ak maam ma mbëj yàlla na yàlla dolli seen leer waaye nag bis bu toll nii mel nii rafete nii taaroo nii sëriñ Mamour mu ngi koy doora am nag ci dëkk bi tubaar fakàlla kon sant nañu leen gërëm nañu leen wax jii may wax nag du samay wax man dañu ma yónni suñu kilifa di xalifab sëñ Mamour moo ma yónni pour ma waxal ko suñu kontante ñette ngaa xamit sëriñ Omar ne fa woote na tey dafa am ngànt waaye bëgg naa def tout pour teew si ci bis bi waaye dafa am ngànt nag kon ñun ñu fi toog it ñoo leen fi toogaaleel xamal ni nag ñoo bokk bis bi ndax ñaari parti lañ ci am parti Serigne Mamour parti ma Mbaye muy ñaari parti yoo xam ni ñoo ko bokk ak yéen ndax ni Serigne Mamour nekk suñu woy jur loolu la nekk woy juru tonton Amar ñoom ñi kon ñoom itam seen baay seen ñaari baay lañu boole kon yàlla na yàlla dolli ñu ndimbal dolli ñu sutura ñu teewee ko ay ati at ak wér ak wér li fan bu gudd waan ak barke kenn bañ cee manqué allahumma si ala sayyidina muhammadin jërëjëf kàddu yi am na solo rafet na kon ñu jox monsieur le maire Omar Talla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu nuyu bu sell jiital ci nuyoo bi suñu xalifa général naan yàlla na ko yàlla may gëdd ak sago ak kàttan ak man-man bu mu jiite avec succès suñu confrères yi di rafetlu lool teewaay bii ci sama kanam ahlul beyti bay paana àggaleel ma ñépp ni maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi doole tamit sama cofeel ci yéen ni ngeen taarale ngoon gi noonu la sëy naa taarale suba gi yàlla nay nekk taar ci kaw taar ilaa yow mi diin lii imaam Seydi wax Baye Mamadou wax ko duma ci dellu dafa mat sëkk li ma doon regretté rek moo di sëriñ mbay sama waay mu jiituma fi excusé wu naa ba ni ko dama am gan gu màgg gan gu màgg nekk xalifa général dingiraay nekk mbokk tamit mu ni ma woon su ma sañoon dañuy ànd dem ca tànt ba sëñ Abbas jërëjëfati jërëjëfati jërëjëf waa Dingiraay waaye su ma la santee damay fàttali koo xam ni ba yoonu Dingiraay lëndëmee te naqaree dem moo ñu fa daan yóbbu muy Ablaay Ndiir bu ñu xamee yoonu Dingiraay ngir yàlla ak Ablaay Ndiir kon Ablaay moomu yàlla na ko yàlla yokki leer fa mu nekk suñu pàpp Aliou bëgg loolu wéyal ko ba ren ñu ànd fa dem boo xam ni waxuma ko dee waa Dingaraay nee nañ kontaan nañ ci ba tey jii rek sama bureau am na ñu ma fa fekk ni ma monsieur le maire nag dangay wut dal Dingiraay insisté ci insisté ci ma woo sëñ Abbas man ko sëñ Abbas man de rusoon naa wax ni damaa bëgg dal di ngiraay waaye dañ maa poñe mun na foofa yaa ko moom loo fa bëgg am ko kam ma booleel ba ma ko woyee léegi dafa ma ni fotool sa carte d'identité rek te ñëw kon sëñ Abbas yëg nañu loolu jërëjëf ak délégation bi nga àndal yëpp waaye Aliou sas nañu Ablaye Ndiir sas nañu tamit chef de village su ñuy demati dingiraay nag da ngay dem ñu ni suñu chef de village a ngi nii suñu maire a ngi nii suñu wëllëre ngi nii suñu notable a ngi nii bay àlliwu yàlla na ci yàlla dimbali bay Papa moom benn nit la moom vitesse bi may daw moom lay daw yàlla na ko ci yàlla dool lay dimbali jërëjëf Baye Papa maa ngi ànd ak adjoint au maire ànd ak Baye Seydina Issa fekk fii waa Ablaye Ablaye Kounoune Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax honorable député da nga daw me tey de comme d'habitude kii ah te euh, dañuy wax bu ñu guddal maa ngi nuyu notable yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag man fi may sama point focal tey mooy kontaan ci waa Dingiraay yàlla leen yàlla indeeg jàmm delloo leeg jàmm ñu fekke seen bis bi ak jàmm ñëwaat fa ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon ñu jox kàddu madame le député Marietou Dieng asalaamaaleykum Laye Mactar maa ngi nuyu mbooloo bi yépp di jéggalu ci toog gi ma toog di jël kàddu yaram bi moo xaw a suttante rek ma ciy jéggalu bu baax di nuyu di ziar di nuyu suñu kilifa diine di xalif général des Layènes di nuyu itam waa kër sëñ Ablaye Baye Paana jox naa la nuyoo bi waaye boobu ma ko nangulalee dama koy nanguwaat jox ko baay ñàmme ndax nag dama féete te nëbbuma ko te ñàmmee sama féete kon ñàmme ceew jox naa la nuyoo bi nuyo rakk yi ak mag yépp jox naa teg ko sa loxo di nuyu aussi chef de protocole du préfet ndax fii mooy fi suñu kilifa ci jotaay bi ñun ñu nekk ci wàllum politique ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu monsieur le maire ak ñu mu àndal di nuyu chef de village bu Malika di nuyu samay goro nuyu naa ñëpp waaye nuyu bi ci gën a sell nag teg naa samay loxoy goro ndax nag ku ma xool xam ne tee bi baax na rafet na samay mbokk wax dëgg yàlla dénkaane nañ ma waaye meeruñu donc maa ngi di sant di leen gërëm di gërëm aussi famille famille waa Mame Maye ga ci invitation bii waaye da ngeen ma invité ci loo xam ne dama cee bokk ndax nag kër gi dama fi soxna bu ma ñëwee ci ndombal tànk war naa ñëw su dul tànk war naa fi mën a teew yàlla nag muy dogal moo tax tey ma ñëwee fi ñaari tànk waaye bi ma mujjee wax muy soxna si moom ma ëppal solo ndax nag mu indi Malika te ñaan nañ yàlla ñu sul ñu Malika Seyna Issa Laye dama koy nuyu naam newu fi waaye moom xam na ne fu ma nekk sama xol nga ci moom sama xel ngi ci moom ndax ba ma tàmbalee ba tey lu ma sóob naa toog ak moom wax ceeg moom te lu ma digal gis naa ci ndam donc maa ngi koy jaajëfal di gërëm di ko sant du ma guddal nag mais dafa am waxtaan boo xam ne nii bi ngeen ñëwee sama kër di ma indi lettre bi dañoo jox koo waxtaan am loo ma wax ma am lu ma leen wax mais ci li ñu leen di wax dafa am lu ma ci téye mooy la notion de la famille ngeen expliqué ma ne ma da ngeen def mbootaay nekk group samp nekk njaboot mais da ngeen cee bool loo xam ne ñu bëri dañu koy fàtte muy ndimbal gi entre la famille ngeen wax loo xam ne dafa ma soxal trop mooy la couche vulnérable mooy les jeunes et dans votre prise de parole vous m'avez dit que da ngeen di jàppale ñi nga xam ne nii dañoo néew doole ñu làqu bàyyi fi njaboot ñu yóbbu leen ci école yi loolu boo leen ko defee ñun ngeen ko defal ñun ñii di ay politique ak waa gouvernement bi ndax état nu muy doxee mooy képp kuy xale nekk ci gox état moo la war a jël en charge nga dem jàngi état nag bu amee faay ci côté boobu na xëy na matlewul lépp mu ngi jéem boo leen ko jëlee en charge di leen war a gërëm di sant di wax ñi fi teew ni lii exemple la ñu war cee mën a gën góor góorlu xool ci lii xam ne lii daal mooy àddina na ñëpp ànd tënk xool yi xam ne Malika moo ñu ñor Kër Massar moo ñu ñor mais senegal aussi moo ñu ñor wasalaam. jërëjëf madame la députée. kàddu yi am na solo kon ñu jox Oustaz Libaas mu wax ci turu association bi auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuy di leen ziyaara di leen balu ax di leen bal ax di jiital ci nuyoo bi surafa yi toog bàyyi ma xujja nekk ci bopp bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax di rafetlu jotaay bi ni ngeen ko taarale xam naa tey moom kàddu yi du gudd président Ndiine faatu mu jéggal ñu rek xam naa lim bëggoon ñu wax ko yépp du fi xaj parce que waxtu wi sori na te ay kilifa boo leen woowee ban ñëw jaaduwul nga toogloo leen ba pare téye leen ci ay wax lu mënul ñàkk rek mooy sant famille bi gërëm leen ci seen taxawaay daaw lan ko waxoon fii ñaanoon fi borom bi subhaanahu wa taala fekke ko ren mu may nu ko dañ koy sant di ko gërëm ci loolu bu baax a baax a baax sëriñ bi nga xam ni famille bu am solo ngi ni ci taxawaay weer wu jot ñu daje ci ëtt bi réunion ci lu jëm ci taxawal bés bi ñetti dimanche yi tegaloo mujj réunion bu ci nekk dajale nañ fa lu ëpp un million kon ñooñu pas-pas ak ngëm-ngëm moo leen may loolu kon ñu leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax yaakaar naa ni honorable député fi mu ñëwee moo ëppal solo te baay Amar chaque jour mënu koy wax sunu maam ab famille boo ci nekkee borom bi subhaanahu wa boolewul ñépp amandoo ñii dañuy am ñii duñu am ñii man ñii duñu man waane la leen di dimbali mooy ña am di gestu ñi amul loolu moo waral kees googu ñu créé ko muy kees de solidarité Mame Mbaye Gadiaga bi ñu évaluer barki démb ci suñu dernière réunion bi lu jege neuf cent mille def nañ ko ci ay ndimbal ci biir famille bi ak ay xale yoo xam ni seen waajur dañoo nekkoon ci famille bi di ñëw réunion di cotiser seen waajur jiitu làqu bàyyi fi njaboot ñu ni njaboot yooyu nag comme seen waajur mu ngi fi woon te nekkatun fi amaana bu leen seetaanee ëllëg mën na doon doon laneen te jàng war na ci ñoom ñuy nan leen jël en charge fayal leen seeni étude ci loolu la ñuy woo njaboot gi yépp ñu bàyyi xel loolu bu baax parce que loolu moom moo ëpp solo ci mbir mi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp loo xam ni mën nañ ko ren rek yàlla dimbali ñu ba man lu ko ëpp ci barkeb alxuraanu karim président njiit maa ngi jégalu bu baax li ñu waroon a wax moom temps bi moo nu ko dul may te comme ni ñu ko waxee rek ay kilifa ñoo toog di ziar ñëpp ba ëllëg incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. waa jërëjëf oustaz Libaas kàddu yi am na solo comme ni mu ko waxee rek yaakaar naa bés bi benn bés la ci at mi kon nag dañuy jéggalu mbooloo mi rek du mën a ñàkk ku taxawal lu mel nii am ay kàddu sant ak ngërëm yoo xamante ni nii war nga ko cee def sant yooyu nag ak ngërëm yi. ñu ngi ciy jiital ahlu bayti seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam gi bu nu ca jógee teg ci sunu wayjur yi toog maam amara ngi nii muy ki toogal sunu maam moor fii ak sunu maam la ak sunu tonton mbay caw yóbbaale ñépp ak président njiin faatu comme ni ko libaas waxee muy famille bu am pas-pas famille bu am gëm-gëm parce que dañoo jël jiital nu ci seen biir lépp loo xamante ni nii gis nañ ko mu mun a dëng ñu jubbanti ko kon mag ñooñu yàlla na leen fi yàlla yàggal waaye nag lii lépp buñ ko dee def it du ñu fàtte suñu way jur wa di pap pap mi nga xamante ni nii ku sonnoon la ci bés bi pour mu taxaw kon nag lépp luñ ci def rek yool ba dina ko fa fekki parce que lu yeneente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni man san sunnatan xasanatan falahu ajru biha wa ajru man amila biha mu ni képp koo xamante ni nii sos na sunna su rafet te lii sunna su rafet la muy ñaanal sa wayjur kon pap moomu ko sosoon bépp yool buñ fa jëlee rek dinañ ko bokk ak moom kon yal na yàlla yokk ay leeram jëggal ko ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la daan bokkal jataay ci pénc mi bu nu ko waxtu mayoon ñu lim seeni tur waaye ñoom ñépp ci barke góor gi yàlla na leen yàlla yërëm xare leen aljana ñu ngi nuyu famille bay Mamour jaxate ñoom it bis bi dañ leen koo tuddee waaye bi ñu leen ko tuddee nag ñu def ci lu am solo am ci taxawaay bu am solo ki yoroon seen kàddu wax na ko muy sunu waajur Mamadou Diakhaté di sant di gërëm monsieur le maire moom it taxawaayam ci bés bi rafet na lool di sant tamit di gërëm honorable député soxna Mareetu Dieng ak boroom këram Libaas Gajaga macha allah seen taxawaay ci bés bi rafet na torop yaakaar naa def na délégation ci kaamil bi joxeel la fa sa ngànt indi fa lu am solo ñu ngi sant tamit di gërëm monsieur Ndiogu Saw muy responsable politique moom it def na lu am solo ci bës bi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di sant di gërëm monsieur Badou ja Badou ja muy premier adjoint au maire macha allah moom it depuis ñu commencé bés bi ba tey mu ngi ciy dugal loxoom bii mooy sixième édition amul benn édition boo xamante ni nii defu ci loxoom kon badu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ambition yi nga bëgg ci sa kanam yàlla na ko borom bi yombal di sant tamit di gërëm. monsieur bakkari Gadiaga moom it ko am taxawaay ci bés bi la di sant di gërëm monsieur Ablaye Diop responsable politique di sant di gërëm tamit monsieur Omar sàll ñu ngi koy sant di ko gërëm ak docteur Gora Niang ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di sant tamit di gërëm monsieur Diop Ngom sunu politicien bu bees bi mu jiite. mouvement bu nuy wax wala parti bu ñuy wax ARC Diop ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax famille bi kontaan nan gis nan li nga fi yónnee di sant tamit di gërëm monsieur Ablaye sëy moom it jàpp na ci bis bi suñu ñëwee nag ci famille yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci dëkk bi sëriñ bi gi nga bës bi léegi fami yi bàyyeetuñ ko ak ñun ñoom ñépp dañ ciy def seen loxo famille yi dañuy def ay délégation di indi seen i teraanga famille yooyu nag mën nañ cee jiital famille Baye mbay njaay famille Baye mbay njaay def nañ délégation bu am solo indi fa teraanga yu am solo ci njiital sunu maam Amar ak imaam Seydi ñu dalal leen teeru leen ah, waxtaan ak ñoom ñun imaam Omar da doon wax naan. dompat ci sot la bokk waaye ñun dañoo rëkkoon mais ñoom nag ñaari rëkk la ñu rëkk bu ñu ñëwaatee dina gën metti ci yéen macha allah famille Baye Mbaye Ndiaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di sant tamit di gërëm famille Mame Lamine Gadiaga ah docteur Badou ñëw na fa ànd ak délégation bu am solo indi fa ay teraanga moom tamit ñu ngi sant tamit di gërëm famille Mame Ndiambe Sène famille maam Njàmbe seen ñoom it ñëw nañ indi ay teraanga yu am solo kon cant yooyu ak gërëm yooyu mënul woon a mën a ñàkk ci bés bi di sant di gërëm mbooleem dawaa dawaayir yi fi nekk yépp rawatina nag daayira xadra bi ku gis jataay bi nii mu taaroo xam ni daayira xadra bi am na jéego bu rëy bu mu ci def ci njiital seen responsable moral Chérif Mbaylaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di sant di gërëm dayre Thiès comme ni ma ko waxee sànq ñu ngi ci sixième édition mais ñoom chaque édition ñu yónnee seen délégation ci njiital seen président Samba kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi sant tamit di gërëm soo Soodaan TV yaakaar naa seetlu ci suba ba léegi mu ngi ànd ak ñun di filmer seetlu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant di gërëm euh, chef de protocole Seck yaakaar naa yombalal nu tey ñëw bi nga xamante ni nii fi la Seyna laay doon jóge Cambérène di ñëw Malika boole na ko commandant bi commandant bi indi ko ba ci biir kër gi toog ba sëriñ bi waxtaan ba pare mu àndaat ak moom génne ko kon loolu sekk ñu ngi la ciy sant ci démarche yooyu nga ci def di la sant di la gërëm bu baax di sant tamit di gërëm kilifay dëkk bi toog ci ginnaaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ñoom ñëpp def nañ seen loxo ci bés bi donte njaboot gi li ëpp ci mbir mi ñoom ñoo ko taxawee waaye nag dëkk bi yëpp bàyyiwun loolu ak ñoom waaye nag sunu wayjur sunu maam xalifa dingiraay sëñ Abbas Gajaga dem nañ këram temps yi la passé seeti ko ak benn délégation bu mag mu teral nu waxtaanal nu cosaan li nga xamante ni nii moom mooy cosaanu Mama Mbaye ñu kontaan ci lool kon sëriñ Abbas ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal sa taxawaay kon foofu la ñuy yemale kàddu yi sant yeeg ngërëm yi di jox kàddu rek Serigne Baye moo xujja bu nu paree Serigne bi jël. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi munshi il ومفني العوام والدهور القائل في محكم تنزيله يا أيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على سيد البواد والحضور سيدنا ومولانا محمد الموصوف بأجمل الأوصاف wa ala alihi wa ashaabihi tayibiin attaahirin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci baat boobu ñeenti baat yooyu li mu ëmb ci jàmm ak xéewal yal na ko yàlla dotti ci mbooloo mi muy sutura ak xéewal ak nanguk ñaan di ziar ñi rosi ci jataay bi yépp xam naa ni dañu koy dëxañ rek ci wàllu administration bi bu ñu jëlee monsieur le maire Momar Talla mu jotal ñu nuyób ahlu bayti bi yépp delloo nuyoo ahlu bayti bi yépp ci ku fi rot si rek yor ndombal politik mu dellool ñu nuyoo bi ci turu njaboot gi fa tabarakallahu bu dee ci wàllu imaam yi boroom xam-xam yi ndongo daara yi bu ñu jëlee sëriñ Abbas xalifa ndingiraay mu man ñu ko jotal ci mboolem ku fi teew si fa tabarakallahu di ko beral nuyoo moom di ko wax marhaban ahlan wa sahlan fii ci sa kër ci say bokk di la ziyaara bu baax a baax a baax dama xalaat ni responsabilité bi ko yàlla jox dégg na ñaari aaya dama jàpp ni nag aaya bu mujj bi moom la jëfe tey ndax yàlla dafa ñu dafa am lu mu ñu sant ci mbokk gi loolu bokk na ci li ko tax a jóg wa uufoo bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula ñaareel bi di ixwatu diin yàlla joxe ndigal ni yaa ayuha alladina amanu nee na yéen ñi nga xam ni gëm ngeen ay mbokk ngeen faslihu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum tuflixuun mel ni boobu xam naa ni moo ko tax a jóg muy diine dee bokk kon nu ngi lay ziar ci ñaar yépp bu mu ci di la wàcce sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla jataay yi tànk yi nga seqi si ci jataay bi yàlla na ko yàlla def mu ay tànk yi xeewal ak sutura ci yow ak njaboot ga fa bàyyi defal ko defal ko defal ko dëkk bi ñu ne di képp ku fi rot ci góor ak jigéen mag ak ndaw di yàlla li ñu fi ñaan ci diggante suba tey ci alquran yal na ko yàlla def leer dotti ko ci rawdu yi mag ña mag yi dëkk bi ala rawatina yi dëkk bi ñu jiital ci maam ma mbay Chérif Abdallah Baye Mamour Jaxate ñu yóbbaale yi dëkk bi yépp di am mbégte lool di ñaanal ñi ñu may occasion bi tey muy famille Mama Mbaye Gadiaga lu ngeen def ren yal na leen ko yàlla fulal ngeen man ko man lu ko raw déwén incha allah yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal mu mel ni nag dafa am lu imam Saxiir waxoon dafa xool Sëriñ Ablaay muy wàcc ci géew yi mu toog ci néegam wéet ak boroomam di xalaat lu ma mën a teeroo Sëriñ Ablaay ci liggéey bii muy def mu bind wayam woowu marhaban marhaban ahlan wa sahlan yaa abdullahi ibnul imaam léeg-léeg damay wax ni war nañ bàyyi xel way woowu ndax sëriñ Ablaay limaamu juru ko waaye fii def ni ibnul imaam ban imaam lay wax Seydina Isa kenn kenn waxul imaam Seydina Isa Seydina Isa la ñuy wax waaye la am solo ca way wa daf ni ko buñ la doon teeroo ka berndeel jëm déwén mu ni du tax ñu fay jëf jii fi bàyyi lay jëf mu ni ko bég nanu yaa xalil daan ko kon noo ngi bég tey déglu waxtaan mais nag waxtaan wan waxtaan woo ñu yee ci rabbana kon mislakum ñu mel ni yéen fu ñu wàcce ñu am ñu am ngëneel bay libaas ña ngi feelu ko wax ni ku xem mem ndënal ñooñ yàlla mu ni dangay ngay déglu ba jërëjëf ni ku xem mem ndënal yàlla mu ni da ngay woote ba waaye nga am xel ci am teggin di toog ak ña koy tibbe tey nag yàlla dogal na Thierno xawma laay wax walla professeur laay wax walla oustaz laay wax waaye daal kiy tibbe jataay bii tey ku ñu xam la ci waxuma ko man de ay boroom xam-xam a ko wax ci bu ñu nee nit ki ndax am na xam-xam dañuy laaj ndax boroom xam-xam yaa ko wax loolu leer na xam-xam bi macha allah yàlla aar ca wattu yar bi macha allah na yàlla aar ca wattu jërëjëf laay toppe gi macha allah yal na yàlla aar ca wattu lépp di dëgg nag ndax lu dul dëgg bu yàggee tas ci ànd bi ak dëkk bi ak njaboot gi yépp mu ngi bëgg a yàgg ca ku mu ci jox loxo nga ni ko jërëjëf kon xam-xam laysa al bi kasrati riwaaya bal annaha nuurun maa diraaya cheikhul xadim moo ko wax nee na xam-xam du bari ak mokkaleef nee na xam-xam leer la ku yàlla sànni ci ku yàlla di sànni ci dëgg du saafara yu ñuy sangoo du ndomb yu ñuy takk du dem ci sëriñ naa ko na ma mbooloo mi topp déedéet leer la looy jëf la di ko dund yàlla jël jaam yi def ci xol jëf def la ci xolu jaam yi kon ki koy bëgg a defe naa bu ma waxul turam war ngeen koo xam mbay laay mu abdallah lañ koy woowee moom la gën a siiwee ci waa yaakaar ji kon sang bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla defal ubbeegu mat sëkk boroom xam-xam yi dañu werante ni waa ndax waaraate lu jaadu la ci lislaam wala jaaduwul am ci am ci ñu wax ni jaaduwul ci lislaam am benn boroom xam-xam bu sukkandiku ni déedéet war na mën a ne ci gàttal rek indi benn aaya ndax aaya boobu laata moo ñëw am na yu ko jiitu waaye moom dafa sukkandiku rek ni yàlla nee na fa zakkir ndax fa inna zikra tanfaul muminin mu ni loolu rek war naa tax ñu waaraate waaye nag mu teg ay charte ni kiy waaraate nii la war a mel bëgguma guddal maa ngi wàcce kàddu yi waaye waaye Cheikh Amar Foutiyou Tall charte yooyu moom da koo tënk nee na daal ku ngeen séet ku ngeen séen mu toog mbooloo wër ko muy waraate nee na laaj leen ko ndax am na métier mu ko mën a dundal pour bañ a pour loolu ñu ñu coow ci waraate Cheikh Omar Foutiyou moo bind ci benn téereem nee na képp ku ngeen gis muy waraate laaj leen ko ndax am na métier mu ko mën a dundal nee na bu ko amul wut leen yar la wax kàcceer yi ndax day bañ ñu dugal ci lislaam bi lu ci bokkul kon nag yàlla dimbali na ko xam-xam bi fa tabaarakallaahu am na métier mu koy dundal kon nu ngi wàcc kàddu yi di wax ni noo ngi bég tey déglu waxtaan woonu yee ci rabbana mislakum ñu mel ni yéen fu nu wàcce nu am nga neel allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim